mbolo mi dal dinañ bàyyeekoo ci diwan yep ak ci gox yep ngir dal di fekke ndaje groupement central biñ dal di amal dimanche ñaar fat ak ñett ci weeru juillet atum 2023 ci Caaroy Gaar dajé dal di amé ci fu Chérif Idrissa taw allah mi fa bay taw dal di yebal be wax ko mu santal ko gërëmal ko mbolo mi Chérif jibi taw allah ibnu Seyna al hajj abdullah taw allah dal di magam kilifa yi dal di jël kaddu fësal taxaway yi rawatina ci li yitteel fédération des daayira Layène du Sénégal ak tamit groupement central. Daouda iya. Mbaye mi vice président groupement central addu ci ñeenti ponk bi ci njëkk jëm ci dattu ñaan yi ñuy dal di faral di fësal te fekk nag ndigal jëbagu ci. wax nañu représentant xalifa yi. ñu bàyyi xel ndigal li xalifa bi joxe ci wàllu communication surtout par rapport ak date datu ñaan yi datu ñaan yi léeg-léeg xalifa bi laata muy génne sax ndigalam maanaam jaarale ko si groupement central muy communiqué officiel boobu ngeen di gis dinañ gis ay initiative lépp nag bi ak xër ak bëgg a waajal mbir yi waaye attiré nañu attention représentant khalifa yi ci importance deglu ndigalu khalifa bi mom dafa organiser diine ji jël mbirum date yi dénk ko imaam Mamadou Makhtar lay

ñu mu ngi bëgg a ñëw mu am nag benn événement bu am solo wala benn réunion bu am solo bu ñu tuddee réunion annuelle lu gàmmu bi nga xam ne mooy constituer lancement préparatif u appel bi ñu daan ko def chaque année fële si yoof kër xalifa bi dajale représentant xalifa yi yëpp ak imam yi ak représentant association yi ngir mën a waxtaan ak ñoom si mbiru wàccaayu appel bi surtout li jiitu si wàllu euh, wàccaayu sas yi muy maanaam dëkk bu nekk lañ la sas pour nga andil ko xalifa pour pour ñu mën a préparer appel bi ci loolu fàttali nañu leen rôle bu am solo bi xam ne moom représentant xalifa yi di jouer au niveau de chaque localité di rôle relais entre li xalifa bi bëgg ak li nga xamante ne ñoom buñ ko jotee moom la ñuy transmettre au niveau des des localités ñu ñu mën ko jëfe ñuy ñaan xali représentant xalifa bu nekk boo demee nga waxtaan ak sa dëkk préparer journée gàmmu boobu ku fay ñëw buñ sa toll groupement sanda dina yëkkati la nga xamante ne sas yi la jógee si xalifa bi jëm ci localité yëpp. troisième point bi mooy li jëm si wàllu rajo li jëm sax si wàllu wàcce appel bi ba tey euh, tàmbali réunion comité de suivi ba nga xamante ne gros travaux yi nga xam ne moom la ñu si xeeg état bi war noo bàyyi ba appel bi jot ñu nekk si ay CRD chaque année bu ñu demee en CRD dañuy xamal nañu euh, euh, gros travaux yi mun fi mun fi sotti si diggante un mois ñu ne kon ren dañuy teel tàmbali réunion yi jëm si wàllu gros travaux assainissement ak gros travaux yi jëm si wàllu route ak infrastructure ngir mën ko teel a jébal état bi incha allah loolu tam waxtaan nañ ñu defar nañ document comité de suivi bi daañu informé xaalifa bi ngir mën a tàmbali ak gouverneur. waxtaanee nañ fa tamit ci li nga xamante ne yitteel na jàmmalaay FM ak taxawaay yiñ ci war a am. laayeen ñëpp xam nañu njariñal rajo bi muy nag dox tant bien que mal ak ay difficultés ñu ne jot na ñu yeesalaat tey.

Nous na sax ñuy proposer lu changement de nature juridique bi lu ci mënti l'implication ou ci implication wu forme juridique bu parce que forme juridique bu ne euh, conséquences yoo xamante ne dala may ci wàllu jëflante dañ ko waxtaane comité boobu ko mbir yépp surtout intégré ci personnel yi la communication

ña fa di di communiquer itam di def ay émission waye personnel technique bi également jotna wala bok jarna ñu ñu njukkal leen bu baax. lu jégué ñaar fukki responsable yu dal di bàyyi ko ci seeni gox yëkkati nañ fa cadeau laata nak Chérif Idrissa Thiaw Laye di yëkkati jataay bi.